Mame tar Gueye ah waaw ñu bàyyi la nga nuyoo di li ni yow yaay vice euh, président bu ONG Jamra waaw ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw nuyoo bi day xam naa ci cant laa koy tàmbali ndax bi ma tawatee woon fii saa njóogu bi ma woowee. ni mu déggee ma doon waxee. sentir naa ne tiitoon na. waaw ndax dënn bi dafa naj woon baat bi mel ni ku ñu xoj. mu laaj ma ñaari woon kooku Mame Matar Gueye ma ne ko mën la ke jaaxle woon na lool na Eh, ginnaaw gi nag eh, yëg naa ne eh, bàyyiwu leen ma seetaanu leen ma mhm. ndax ñaan yëpp egsi na xam nga ñaanu lu day nii Omar bun Xattaab <laughs> lu day nii Alaaji Sa Njóogu fu mu dal moom foog mu jul résultat kon na yàlla na leen yàlla fay seen xol bu rafet te yàlla may ñu wér ñun ñëpp parce que am naa yaakaar ne lu waay di ñaan alal ak dara jaag te jiitaloo ci wér de juum nga balaa wér balaa ngaa xam importance am rek mm. yàlla xañ la ko dontale cinq minutes la rek mm-hmm. kon na yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ñu wér ñëpp mm-hmm. waa kon buñ xataab euh, xanaa maa ngi ci seen disposition waaye dama wax saa njóogu sànq ne ko damay jéggulu ci retard bi parce que daf ñu fekkoon réunion bureau exécutif mm-hmm. dañ doon jël position par rapport ak euh, appel au dialogue national bi président de la république woote te mu jur fantasiro ci opposition bi ñii ne dinañ dem ñii ne duñu dem alors ñun nag ñu doon wax ñun suñu xalaat <laughs> alors euh, manee saa saa njóobu nag euh, dama génn ni ci réunion bi rek ñëw fii kon daanaka <laughs> euh, solution ñoo am exclusivité bi voilà <laughs> waaw li da li daanaa léegi seen Lamine mburu mu tàng bi ah ñun ñoo koy njëkk a am Mame mm. Matar Gueye ah. Mm. léegi euh, waaw mun nga ñu wax rek yéen lan mooy seen. waaw euh, d'abord il faut que ma mm. def un petit rappel rek ndax xam nga. di fàttali ni émission bi mën nañ ko seetaan ci solution info bi ak ci mm-hmm. Walfadjri. macha allah direct defe na. waaw yëpp waaw di fàttali ne rek taxawaay boobu du guléet ci ñu ñun. Mm-hmm. ndax ñun lépp loo xam ne luy jur jàmm la luy yokk juboo ci nit ñi comme que moom Abdoulaye Sy baax bokk na ci kilifa yi ñu yar. Mm-hmm. ñun dañu yàgg def ko ittee. Mhm. voilà woote jàmm nag ak di dox jàmm terewul ku nekk posture politique syndicale ba nga am. Mhm. nga ngoy ci gëm la nga gëm. Mhm. ñeneen itam gëm la la ñu gëm waaye ñu rafetal rek. ñun loolu mooy suñu gis-gis ci dialogue politique loolu moo waral nag. Euh, maa ngi koy remercier au passage euh, bi mu nekkee directeur euh, général du port Cheikh Kanté. dama ci mosoon waxtaan ak moom. boobu Macky Sall la ngi doogoon def deux ans au pouvoir. Mm-hmm. Ah, en 2014. Mm-hmm. Euh, ma ne ko maa ngi lay remercier ci cas sociaux yi ma fi indi te nga réglé ko. Mm-hmm. parce que dafa am ay gos yoo xam ne ay CDD la ñu ñu dàq leen. Cheikh jàpp si ba ñu jëlaat leen ma ne ko ginnaaw bu loolu wéyee. dama la bëgg biral naqaru Jamra. ci sew yi waa APR yi def Ablaye Wade. gañe ngeen ko yéen a ngi doog a def deux ans au pouvoir. waaye bés bu ne wax ju sew dem ngeen ba di ko jiiñ sax ne dafay dafa sàcc mokket yi mhm. ak tableau yi ñuy def ci biir kii bi yóbbaale ko ñaaw na loolu yëpp nag li ci gën a tar mooy il y a un mur de glace entre l'ancien président la Abdoulaye Wade et le nouveau président Macky Sall mhm. lu ko fi jar mhm. voilà moo tax nag gañe ngeen kenn waranteetu ko waaye rafetal leen seen diggante ak góor gi nga xam ne moo ñu yilif ñun ñëpp ma ne ko bu ma sañoon nga yombalal ma ma am jokkoo ak Macky Sall wax ko yóbbante Jamra mu daal di ko lijjanti en moins de dix jours. Mhm. Macky Sall recevoir ñu pale xam nga rek ay façon am dama ñëw rek mu tàllal ñaari loxo yi ah voilà euh, euh le frère qui a laissé tomber son frère ma ne ko yow yaa ma laissé de. mu ne maa ah, ci naga ma ne ko yaa ma fekk ci teraanga bi ma Ablaye Wade jox président conseil d'administration foire nga falu rek dax ma kon yow yaa ma laissé tomber mu ne dootu xam nga pare feur yi. da ngay signé doo seetlu affaire yi ma ne ko yaa ma dàq rek <laughs> ma ne ko <laughs> ma ne ko bref waa Jamra ñoo ma yónni ndax dañu ittawoo jàmm réew mi ñëwuma fi ñaan la oto walla post walla lu mu mën a doon yóbbante bi mooy ab Ablaye Wade mooy vraiment le patriarche moo yilif ñëpp parce que amul kenn ci classe politique bi actualité amoo jaar-jaar ak moom formé na la sur le plan administratif sur le plan politique ma ne ko yow mii en 2007 yaa doon suñu directeur de campagne yow yaa tax ma xam ruq-ruqaan yu bari ci dëkk bi ndax dugaloon nga ma ci commission communication bi man ak Abdou Fall ak ndem si yàlla si Iba Der ak Abdou Latif Gueye yaa tax ma xam Saraya Kumpentum Salamata kon man itam du ma gan ci yow waaye encore une fois yóbbante Jamra dañu bëgg nga defaraat tuuti sa diggante ab Ablaye parce que dafay am ay jeexital ci njaboot gi. Mm-hmm. te loolu mën na jur lu kenn xamul. parce que dérapage verbal yaa ngi tàmbali te lu ne xaj na ci. ma ko nag yaa ma yaa ma ëpp expérience mais Mamatar c'est bien loolu peut-être euh, ça appartient au passé ci dialogue bi tey ngeen génn tey ci la la ñu bari di xaar lan mooy position Jamra. déet parce que ñun dañu sukkandiku. danoo bëgg nga jox ñu exclusivité bi quoi. waaw dañu dañu sukkandiku sur le passé. Mm. pour jël position sur le présent mais je serai rapide. ma ne ko. gisi lu Jamra mooy que le dialogue politique doit être permanent waaye warul nekk un dialogue de circonstance mm-hmm. yéen balaa ngeen di dialogue rek homme politique yi ñu dëgmal élection wala daal euh, situation am dafa war a nekk permanent mm-hmm. maanaam exemple yu bari na dama la citeel benn rek wala ñaar sa naataango Nicolas Sarkozy bi mu faloo en 2007 mm-hmm. il avait la légitimité il n'avait besoin de personne il n'avait pas besoin de l'opposition pour gouverner waaye terewul comme que pays européens yi dañu nekk ci ay jéego pour egg fi américains yi egg maanaam États-Unis d'Amérique ñoom tam dañu bëgg États-Unis d'Europe ndax góor góorgóorlu nañu ba am passeport unique góorgóorlu nañ ba am unique muy euro góorgóorlu nañ ba am parlement unique mooy bi nekk Strasbourg kon léegi constitution unique rek moo leen dese ñu daal di am les États-Unis d'Europe ñu war ko waxtaanee à Bruxelles Sarkozy qui venait d'être fraîchement élu bu ko neexoon jóg dem parce que moom la français yi wóolu fal ko moo yore légitimité waaye defu ko dafa ubbi les portes de l'Élysée mm-hmm. ubbi dialogue mais pas un dialogue de circonstance waaye dialogue permanent daal di recevoir euh, les les les centristes recevoir les libéraux recevoir les socialistes les et même l'extrême droite qui était incarnée à l'époque par Jean-Marie Le Pen loolu jural ko coow ci partem waaw lu tax ngay recevoir kii c'est un raciste c'est un mu ne et eh, après ci réew mi la bokk mm-hmm. donte la ñaari nit ñoo ko topp sax ci réew mi la bokk alors ba mu dégloo ñëpp taataan xalaatu yëpp ba mu nee cëpp au sommet de Bruxelles tour de parole am ñëw neewul projet de constitution européenne bi man Sarkozy nii laa ko gisee. moom Matar bi bu ñu la toppee. yaa ngi boo xam ne. ñu fa balaa ngaa génn France. taarix jeex naa ko conclure naa ko mbirum France jeex na jeex na alors ba mu demee ba ah. mu demee. neewu leen nii laa ko gisee. déedéet dafa ne voilà la position de la France alors ñu wax Macky Sall nag ne ko. Hmm. ñun noonu lañu gise gisee dialogue politique. Ah, ci dialogue kon nag waxal ak euh, leader yi. rataxal sa diggante ak. bu bees bi alors bref Sonko Sonko demul Mimi demul. alors bref euh, euh, loolu dama leen ko wax. bugaan demul bugaan demul Abdourahmane Diouf dama bëgg ngeen xam ne bu Jamra yëkkatee kaddu. kàddu ci li lëmbe réew mi muy. dialogue politique. waaw ce n'est pas par opportunisme. waaye lu ñu yàgg dox la lii ma lay nettali nii. Mm. te Cheikh Kanté may dégg ça date de 2014 kon ñu yàgg nañ ko dox. Mm. waa kon bu Macky Sall la jógee jëfee ko ñun ndéem li ñu doon wootee dëggalu ci ñun duñu ko duñ ci ànd. alors voilà pourquoi mais ñaari dialogue yu mujj yi foo ko ba ñaari dialogue yi ñu fi dialogue lu ak lu mu jariñ waaw loolu Jamra tamit war na cee tenir war na cee bàyyi xel alors kon bu wootee loo xam ne ñun depuis 2014 alors que il venait de faire deux ans au pouvoir ñu ngi koy kaas bu wootee jëfee ko ñun mënuñu lu ñaan premièrement na nekk lu sincère deuxièmement na nekk lu inclusif c'est-à-dire bu mu exclure kenn troisièmement bu mu dàq benn point de l'ordre du quatrièmement bu mu imposer ordre du jour na ne daal. loolu ngay wax yëpp lu ñu luy taxawaay dana ko def parce que xam nga lu da opposition yi. <laughs> mais yow dialogue bi ngay bañ moom lay def dialogue de circonstance. <laughs> waaw waaye nag euh, tubaab yi tubaab dafa ne il vaut mieux tard que jamais. Mhm. chinois yi ne. cing cang cong can cong. <laughs> Euh, il n'est jamais trop pour bien faire. <laughs> voilà donc damay damay <laughs> alors kon nag mais est-ce que cool yi tey jii ñu dugg ci yuqu wax ji. waaw mooy waxoon ko dëgg. Hmm. mooy ñi nga tëj ci kaso bi te tëjoo leen ci yoon nga may leen jàmm Ousmane Sonko mi nga mayul jàmm di ko woo ci yoon semaine bu ne ñu ibbil ko benn procès ak benn plant ñu xool na lañ koy jàmmale yow mi ut troisième mandat te waroo ko am. voilà yow moomu la déjà yaa ngi régler problème bi. c'est-à-dire yaa ngi commencé di alimenter or du jour bi. Mhm. voilà moo tax ma ne ça doit être un dialogue exclusif inclusif. Mhm. bu ñu dàq dara. Mhm. mooy li kii daan wax ndeysaan Abdou Diouf nee na on doit discuter de tout avec un grand T. voilà kon ñu loolu lay ñaan eh, yàlla léegi nag il faut ñu ñu euh, euh, rafetlu taxawaayu Khalifa Sall ndax moom nangu na. foog ñu rafetlu taxawaay tamit euh, PDS ndax ñoom nangu nañu parce que dama ci mës a am. friction léegi léegi ñi nanguwul nag. waa li ñu nangu ma di leen ñaan. Mimi Touré ñu ñu cohérent avec eux parce que xam nga dafa am bés bi ma nekkee position bi Seydou Gueye am tey ci benn bokk yaakaar man moom laa amoon ci nguuru Abdoulaye Wade waaye suñu benn bokk yaakaar muy tuddoon CAP 21 man ma ne seen porte parole Iba Der nekk coordonnateur euh, dama si mës a am tuuti friction ak suñu nijaay suñu bàyyee Moustapha Niass euh, jamono Benno Siggil Sénégal. on n'accepte pas le dialogue parce que le dialogue d'Abdoulaye ce n'est pas sincère euh, il a l'habitude de de penser seul de décider seul et de se tromper seul. man na ma ma ah. <laughs> c'est que Sénégal avancé wut lu doy di. ma ma ma ma ma tonton ko ma ne ko tonton ma ne ko tonton. ah mënu leen bëgg une chose et son contraire da ngay wax ni il décide seul il pense seul il se trompe yéen ko wax maanaam dafa wéet. dans ses prises de décision te décision bu mu jël rek day am impact sur euh, euh, toute la population kon ne ngeen kon dafa war a waxtaan woote na kon yi ngay wax nii c'est l'occasion nga ñëw toog mais ko doo fi décider seul doo fi panse seul ndax réew yi moo moomoo ko voilà donc euh, Abdoulaye tamit la lancé plusieurs fois des appels au dialogue léeg-léeg mu réussir léeg-léeg réussir alors léegi nag Macky Sall a pris le relais il a lancé un appel man modestement li ma bëgg wax opposition quelle que soit la pertinence de vos revendications troisième mandat ñi ñuy tëj ci kaso bi dem leen ca taabal ba ngeen toog fa wax ko boo leen ko waxee nag Macky Sall la nangu cee addu mais peuple bi ci boppam dina ne ah. kii jàll bi c'est pas sincère pare na pour jël bâton de pèlerin pour dox ci. mosuñ see jóg. parce que du du lépp la ñuy wax ci ci ci penc bi. waaye ba fii may wax yow bii ñu ngi tëdd trois heures du matin am na kilifa yu ñaari kilifa yu ma seet woon ci wàllu politique naa leen ngir yàlla. dem leen ci dialogue bi. parce que vous ne le faites pas. pour vous euh, waa du rafet ndax ñoom il ils la garder l'anonymat ils sont en train de négocier ci suuf. Ah, xam nga xam nga xalifa xam nga xalifa dafa ne danaa ñëw. waa PDS ne danaa ñëw. am na ñu ne bëgg nañu ñëw waaye am na coow lu ñu ragal. waaw ñooñu nag il faut les aider à franchir le pas ndax xam nga lu tax dialogue tekkiwul ne li Macky Sall wax foofu yëpp da ngeen ciy ànd Macky Sall n'a pas le monopole de la vérité. est-ce nga def nii Mame gën a garaaw ne am na ñaari kilifa yoo xam ni ñu ngi négocier ci suuf loolu est-ce que gën a garaaw parce que xam nañ ni Idrissa Seck moom négocier ci suuf xam nañ ni Khalifa Sall négocier ci suuf wax na li mu bëgg. gis ne xam nañ ni Karim négocié wu ci. Mimi Touré moom lañ fi dégg. mu wax ne du dem ak ki nga xam ni moom la ñuy wax Ousmane Sonko. attention ah. pas pas négocier si suuf. léegi boo waxee nii est-ce que tamit euh, wax ji du pour. déedéet xel yi non non non pas négocier ci suuf. Ah. dans un sens négatif ci dans le sens de deal ou de. ou ah, de déet ñu ngi wax ci suuf euh, ñëw loolu dafa am lu muy. firi déedéet maa ngi ñëw firi. pas dans le sens de faire de deals wala bokk. loolu ñuy wax bari yëgo dé du sens boobu de waaye daal ils sont en de consulter seen i am di jàmm ñun euh, ñaar ñooñu am na ci koo xam ne si ñu am di jàmm la mu ñuy laaj ne ma dem wala du ma dem ñun tam ñox si ñox alors di féliciter tamit le maire de Thiès moom nee na day dem Babacar nag a mm. nee na day dem kon déjà xalifa ne dina ñëw waa PDS ne dina ñëw le maire de Thiès nee na dana ñëw. mais est-ce que voilà, Sénégal gi voilà ñëpp a dem rek. est-ce que dialogue que Mamatar dialogue boo xam ni Ousmane Sonko bokk ci ci jamono ji ñu toll nii ak li bi pesé ci réew mi est-ce que dialogue boobu am na sens. waaw mais tubaab dafa wax ne nul n'est indispensable. ah ko ca Barma ne benn picc mënul tasum ndaje. Ah, nañ benn picc kon xam nga kon nag loolu mooy erreur parce que bu ngeen xalaatee ni Ousmane Sonko kese la mais Ousmane Sonko dafa am mbooloo li muy représenté ci réew mi. bu fekkee ne da ngeen ko considérer comme benn picc est-ce que loolu du njuumte. tant pis cest à moom. Eh, Mame ah, nit mën na bañ a. c'est-à-dire moom amul barrage barrage amul mu ne la nit nit nit Mame Matar. Euh, waaw tant mooy mooy c'est pas grave. waaye c'est pas grave alors euh, mais ce que je lui conseille fraternellement moom Ousmane Sonko. en tant xam nga il nous avait reçu vraiment nit ku woyof la le 27 euh, février sa coow la. waaw aji Sonko Sarr. Hmm? recevoir ma man Abbé Jacques Seck euh, imam bi sonaloon Ablaye Wade ci couvrir Coran yi nu mu tuddati Youssou Sarr imam Youssou Sarr ak seen imam bi nekk fii le consultant religieux imam Cheikh Tidiane Diop hmm. il est c'est quelqu'un qui est ouvert au dialogue Sonko il n'était pas obligé de recevoir hmm. ndax ñun amuñu aucun cachet institutionnel dama woo jabar ji rek madame Diamanka ma ne ko nag coow li bari na ci dëkk bi depuis que sa boroom kër nee na du wuy ji juge loolu la ñu bëgg waxtaan ak moom Euh, maa ngi woo bi euh, émission li si dëkk bi jeexee c'était le la le le vendredi vingt six février mais dès le lendemain rek mu woo ma ne Sonko ne na ngeen ñëw te ba ma ñëwee fekk nañ fa ay gan ay kilifa parce que Mamadou Diop Decroix kilifa la quand même mu nga toogoon Habib Sy mu nga toogoon salle d'attente bi mais bi Sonko yëgee ne ñëw ñun ñëw nañu mu def faveur ne na ñii ñëw les médiateurs religieux kon c'est quelqu'un qui est ouvert au dialogue alors ba ñu ñëwee nag abbé Jacques ubbi wax ji parce que moo ñu mag ñun ñëpp euh, quand même euh, qui est quelqu'un qui est né en 1932 mu ngi si 83 ans ou 84 ans daa di ne sama jarbaat bi Mame Makhtar gi bu Jamra moom la ñu jox suñu kàddu alors ma ne Sonko waxtaan nu mu gën a franc rek ci lay gën a yomb voilà ñun daal dañuy ñëw en toute franchise wax la ne d'accord ñu ci li nga wax ne doo wuy mu ne ma non waxuma ne du ma wuyu ji pour défier la justice dama ne du ma wuyu ji parce que d'accorduma procédure bi ñuy jaaralee la levée de mon immunité parlementaire bi ñuy tekki suñu malaani kiiraay fañ ko jaaralee d'accorduma ma ne ko bokkul nag kooku c'est l'institution législative mm-hmm. léegi yow c'est l'institution judiciaire moo la woo boo nee duma dem dafa mel ni ñoom ngay défier bref de 16 heures à 17 heures 30 à la fin mu nangul ñu. waaw mais bii rafet mais bii tamit est-ce waa Jabra xam nga. moo tax nag da nga ma laaj ci Sonko dama lay tontu da nga ma laaj ci Sonko je termine ci Sonko. mu daal di ñu nangul. te ñun du ñu dara. ay labbe lañu ñu dara xam nga loolu wane na ne. c'est pas quelqu'un qui est fermé. il a posé une seule condition. dafa ne may leen ma comme que samay avocat dama leen jox cër. ma waxtaan seeg moom ñoom ba noppi après ma ah. jël position après il a pris position et il a répondu à l'invitation. waaw c'est que man man Matar xam nga man. damaa man Ousmane Sonko boobu laay dama lay dama lay wax dama lay dimbali. c'est dama lay dimbali non c'est bu ko ñaan ci télé bi c'est que bëgg. xam mm. nga yow Mame mm. yéen euh, maanaam mën ngeen a lu bari ci dëkk bi. waaw mais euh, ci kaw nit ñi gis ni yemale ngeen euh, yëf yi. li nga mm. xam ne moo leen xam nga Ousmane Sonko waxut ni. du dem du dem ci jaloog bi. Mm. dafa wax ni ni mu bëgg a dialoguer. Mm. maanaam dafa bëgg jaloog boo xam dialogue bu sincère te. deltu na ci ñaari dialogue yu fi am xam nga dialogue nepp c'est pas la première fois mu am fi am na ñaari dialogue yu fi yomb yoo xam ni waaw mais yooyu doxut échoué na waaw léegi pour ñu dem ci dialogue boo xam ne dialogue bu sérieux la yéen est-ce que jàpp man jàpp naa ne yéen ñii ay Jamra am ngeen rôle bu am solo bu ngeen ci war a mën a jouer pour dialogue bi nga xam ne moom lañ jëm mu nekk dialogue bu sincère dialogue bu sérieux mais ginnaaw moom teg na ay conditions am na nu mu wax ni tamit hmm. bu loolu amut maanaam doo tee samay nit wañ sama loxo ne ma kaa am na lu mu teg est-ce que tamit du ngeen jéem a dem ci moom ngeen négocier loolu. ak yow ak 100 pour cent. il a le droit de poser des conditions. waaw parce que dialogue Sonko euh, Pape Diop Abdou Mbaye waruñu fa ñëw rek. Xalifa nee na moom nu mu demee baax na moom na dem élection rek <laughs> na dem rek. mënuñu mënuñu fa ñëw rek comme des spectateurs. <laughs> kon ils ont le droit de poser des conditions. Mm-hmm. Macky Sall aussi en tant que partie prenante du dialogue il a le droit de poser ses conditions. yooyu yëpp nag nañ ko teg sur la table. Mm-hmm. waxtaane ko. Ah. mais Mamadou ñu jàll ci leneen. Ah. daa am loo xam ne dafa leerul ci bopp ñu bari. Mm. nit ñi dañ koy xumtoo mais nanguñ ko yëkkat ci kaw mais mbiru góor jigéen ñi. Mm-hmm. ci assemblée nationale. kan moo loi bi lan moo ko téye lan moo ko téye. non Mame Matar dina ci xam lu ñu xam. waaw bi daaw def naa ci ñaari point de presse. bu tey bii la bi ne na jonn bi ci assemblée suñu posture mosul changé c'est-à-dire ils n'ont pas le droit. ci ñan la mbir mi tawee. ci bureau bi le bureau de l'Assemblée nationale. bureau bi ñan ñoo fa ëpp. bon j'ai pas la configuration exact waaye daal tous les députés membres de Benno membres du bureau l'ont rejeté alors daaw ba mu amee ñu nekk ci xuloo naa ci avec xuloo xuloo xuloo woon naa ci daaw avec le président du groupe parlementaire euh, benn Bokk Yaakaar mm. euh, di Almeru Ñing bi koy journaliste soññee ne waaye lii lu tax ngeen rejeté ko te yéen yee foo leen toll rek surtout seen président Macky Sall naan tant que la kenn du ko dépénaliser waaw lan moo tax ngeen rejeté ko mu ne noo parce que la loi de 1961 bi nga xam ne moo tere affaire borom ñaari tur réglé woon na la question kon ce n'est plus la peine qu'on ne ko juum nga parce que euh, le le le viol a toujours été condamné par le code pénal kon mën nañu ne amatul dara luñ ci jooyanti ah. waaye dañ koy jooyanti parce que y une eu une recrudescence des viols et des violences sexuelles et toute autre forme de violence faite aux femmes parce que daani dafa néew hmm. looloo waral Jamra ak ñoom day am saaxoo AGS que je salue au passage ak ñeneen ñu tànqal Macky Sall def nañ ñaari sitting place Obélisque ne ko nañ yokk daan te boobu dafa tombé woon la tentative de viol suivie de meurtre de Binta Camara bu Tamba. xale bu jàmbaare. boo xam ne doontale saay-saay bi la mu bëggoon amu ko. waaye elle a résisté ba ñàkk ci bakkanam. loolu waraloon ñun ñu yokk jéego yi alors. violon yi ni donte le depuis cent mu ngi ci code pénal bi waaye créé nañu la loi deux mille vingt zéro cinq du du du 10 mille 2020 xanaa kon mënoon nañu wax ne jarul jarul ñu di ci wax parce que la loi était là ñaareel ba. Mhm. que euh, criminaliser nañu. le le le le kii mu mu tuddati. l'infanticide. l'infanticide waaw. criminaliser l'incendie volontaire. Mhm. criminaliser nañu le vol à main armée. Mhm. ñun Jamra criminaliser nañu en 2007 parce que boobu on avait un député. par la loi 2007-31 du 30 novembre 2007 le trafic de drogue coow amul criminaliser nañ le vol de bétail coow amul waaye nag lañ ne dañuy criminaliser ngóor jigéen rek coow li jóg lu xew alors ma ne nag almeeru ñi ngi bàyyil di ñu taxé yow en tant que président groupe parlementaire benn mbokk Yaakaar mhm. de politiciens encagoulés lu ñuy encagoulés ñun on combat à à visage découvert ba ñu seeti sëñ Muntaxa mu signé seeti sëñ Babacar Mansour mu signé. on l'a fait à visage ba ñuy ñëwee di ko déposé. c'était à visage découvert ñu bari noo jàpp ne bu changé. évolution mun na am mais tey jii diirante mbagg moo fa am cohabitation mais bu nee loi bi jàllul problème la. waa loolu nag xam naa euh, ñi nekk membre di biro ñoo ciy mën a joxe ay détails. waaye lu wóor. oustaz Matar Sarr le le ñu bañ a ñu ñu ñu voté ña bañ a voté voilà <laughs> donc le scénario est le même. ña ko rejeté woon ñoo ko rejeté waat. alors léegi nag y a les députés. de de de de de qui sont là. Mhm. te ñoom ñoo ñu gën a gudd loxo parce que man awma accès assemblée nationale. waaw ñoom du ñàkk mënul ñàkk. en interne ñu am lu ñu mën a def ba xam blocage yi fan la mais Mamataar pour yow c'est le combat des deux. parce que ñu on se à l'extérieur du point de vue de de la bataille. mais Mamadou Ba temps bi mi ngi bëgg a jeex foo ñëw ci. Sonko affaire kii bi. ndaw si affaire am sur Sonko kii naan xaw ma du koy interpellé. Ah, waaw kay waaw foofu laa bëggoon a ñëwaat dama koy interpellé. directement voilà foofu dama bëggoon mu wax. ma ne la yaatu ba nga wane woon. la mais dina fa dem. déedéet li jàmm waxi jàmm la. du ay xaw si sori du dara. dama ne dama ne laa biir laa biir ba mu wane woon. en le 27 février 2007 recevoir le collectif des médiateurs religieux pour la préservation de la paix civile franchise ba mu wone woon ci mhm. discussion ak tamit temps bi mu ñu jox parce que de 16h à 17h30 bu fekkoon la ñuy wax ñoru ko mhm. du ñu tey foofu laa biir googu man gëm naa ne mu ngi ci Sonko ba tey mhm. voilà moo tax nag tu droit de poser des conditions parce que partie prenante nga doo ñëwuloo fa pour seetaan match waaye tamit ñeneen ñi ils ont le droit de poser des conditions li leen Jamra di ñaañ nag dajale leen autour d'une table bu yeboo sax avant dialogue bi mu war a am un pré dialogue boo xam ne euh, mission bi. Euh, euh, mooy de préparer un ordre boo ñu xasee ba ba ficelé ko nag ngeen doog a dem. dialogue noonu la war a demee mais dialogue moo xam ne ñëpp ci <laughs> hmm. ngeen mën a dugg ci lu seen yoon nekk <laughs> mais une affaire privée entre benn góor benn jigéen boo xam ne da doon génn pour man. man bi ma yëgee ñu bind communiqué Jamra après ma gisaat ñu ne dangeen ko démenti j'ai pas compris après lu seen yoon. pas de démenti parce qu'il y a rien à démentir. Ah, seen yoon lu seen ci loolu. seen gars yi dañuy juum kii moo jëkk juum. man mii moo ne waaw. il paraît que ñoom Maxtaar dañu porté woon plainte euh, kii miir ma jotel je ne connais waaw après mu rëcc ñu ñëw dugg ci kaw bi takkee seen audio bi ak mi ñu leen takkee la waaw ma ñëw ñu ñëw duggaat ci mbir mi pour affaire fayuntoo la waaw mosuma tudd turu Baba Amdy xanaa tey mosuma bind turam rawatina Jamra di porte plainte contre kon loolu moom tooñ nañ ku ngeen plainte alors c'est plainte amul non mais cest am c'est li tax plainte bi ñëw da ngeen a oon Evenprod euh, xaw ma non loolu loolu c'est autre chose c'est les dérives audiovisuelles uh-huh. alors ce qui s'est passé te maa ngi koy remercier ten Tandian moom si waaw si coow def na lu rafet. Mhm. nee na wax naa mbir maa mu woo la. nga mhm. conseillé ko ndax xale la. Mhm. ma rafetlu ko ma ne ko ñoom ñëpp suñu njaboot lañu dañuy juum di tarxiis. waaye lépp ci biir waxtaan la euh, mbir maa woo ma. Euh, woo itam yàlla barkeel ko lool ndax mbokk def ci feeñ. ndax moom mu ngi tudd maam Mariam Pay payeenu pencu cëddéem la. Euh, et en même temps payeenu pencu mbot. tudd ma ñenn ci ay nijaayam ak i maamam yoo xam ne samay cousin lañ. Mm. voilà ma ne ko lii nag c'est une motivation supplémentaire. Ah, kon yow mbokk ngay liggéeyee. ma ne ko ma ne ko même boo dul woon mbokk. <laughs> même boo dul woon mbokk. dama leen ko wax en passant. même dana la taxaw. ma ne ko li ma la bëgg a xamal. Mm-hmm. suñu yoon newul ci sa promesse de mariage bi la jural toute cette désordre suñu yoon newu ci. Mm-hmm. suñu dugg ñuy tamit ci. des des allégations de de viol yu mës a am dans bi vie ça ne intéresse pas. Mhm. parce que suñu borom moo jàngal ci diine l'islam ne wama shahibna ila bima alimna le le croyant doit éviter. Mhm. de témoigner de ce dont il n'est pas sûr de science certaine. Mhm. comme que affaire u euh, seqante góor jigéen ak affaire u euh, ñaari way dencante dafa nekk lu délicat suñu borom ne na ngeen ci maanu ma ne ko kon loolu intéressé wu ma. ma ne ko kon li ma intéressé. yërëm naa la ndax jooy yi nga jooy sa dënn fees na ah. jooy nga xattit kon yaa ngi nekk en situation de détresse ci cadre boobu dans ce cadre strictement ne me parle même pas de Bara Handy il ne m'intéresse pas ci cadre boobu Jamra dana la taxaw yaa ñuy wax nag yaa ñuy wax nag loo bëgg est-ce que doomu Baba tamit mënta jooy bi mu déggee ñu waxal lenn yi papaam kooku tamit xalaat ngeen ko calculer ngeen ko. waaw waaw bu jooyee moom wax ko ne ko looy jooy. alors ma ne ko lii ma la wax nag. c'est pas li nga feeñal mbokk ci suñu diggante moo tax ma wax la ko. duggule ci ñun danaa cité koo xam ne euh, presse bi wax na ci ba noppi kon y a rien de secret ma ne ko Aïcha Thiam bi doon joué ci infidèle te ñu gën ko xam euh, ci nom d'artiste euh, kii Aïcha Thiam defe na Mariama la tudd. Mm-hmm. alors. ma ne ko lu mel nii daf ko dal euh, infidèle mu jékki rek mu am clash ñu ñu tàggoo. Mm-hmm. mu daal di am deux versions. Mm-hmm. ñii naan Aïssa Thiam dañ ko bëggoon jouer le rôle boo xam ne ngor bu ko dina bu ko mu bañ. Mm-hmm. séparé ak ñooñu. waa waa waa Evenprod riposté def seen communiqué ne non non non euh, programme ba ñu programmé woon pour moom pour la série dafa jeex. duggul ci alors ba ma jokkoo moom ma ne ko soxlawuma xam loo jotee ak infidèle ça ne m'intéresse pas. dama la bëgg xam ne nii Jamra am na yéene taxaw la ndax dàq nañ la te yaa ngi ci daan faratu ak as tuut di si sutural sa bopp sa njaboot ak say waajur <coughs> léegi nag danaa la boole parce qu'on travaille avec un pool de consultants mm-hmm. dana am consultant bu ma la booleel mu mettre la en rapport ak Justin Coly c'est le directeur de la cinématographie parce que état bi dafa créer lu ñuy wax FOPICA le fonds de promotion des industries cinématographiques et audiovisuelles mm-hmm. boo xam ne un milliard cinq cent la woon Macky Sall def na ko deux milliards ce n'est pas normal mm-hmm. que producteurs yi aaki moo ko di ko lekk bàyyi actrice yi kon dinañ trouver pexe ñu seet ni ñu mën a def ba ngeen mën am as am seen sutura ma daal di ne yow itam préparel say dossier dinañ la jàppale. macha allah c'est tout foofu ngeen jeex na maam Matar waaye affaire viol ak kay lu ci suñu yoon. lu ci ah. Jamra xam. Jamra mosul dugg ci affaire yoon. moo tax nag li ñu ah, dugg ci seen yoon bu bëri da ngeen dugg ci dossier boo xam doo leen ko gëstu tamit yenn saa yi. yooyu ngeen doon wax tamit après xale bu jigéen bi mu. évangéliste yi dafa wane da ngeen baay bi. moo ñu woo. Ah, xam nga yooyu yëpp ah, eh, oustaz eh, eh, kii kii si. léegi nag waaw waa mais kii mooy dugal ci loolu. parce que dama xam nga doomu doomu tuumaal rek mu pare dem. alors léegi ma ànd ak moom ñu porté ji plainte. ci ah. commissaire Kébé. nee ko évangéliste yi amuñu droit. di def ay porte à porte yore seen flyers. di endoctriner xale yi di leen def lavage de cerveau. ba am na ñoo xam ne leen génne seen diine du dëgg du yoon. ma ne ko li ci gën a grave bi ñuy aborde xale bi dañ ko gëmloo ne waaw ñun dañ def di social dinañ la jàppale fourniture école ay inscription parent yi comme que ay néew ji doole rek. bàyyi ko seen loxo. waaye la ñu njëkk a seetlu xale bi jikkoom di soppi bu ñëwee ci kër gi nangootul julli du dëgg du yoon. ñoom nag ba ñu demee ba seen xel tey ñu dem ci évangéliste yi ne waaw da nga ñu doon dimbali ci fourniture rek inscription bëggatuñu delloo leen suñu doom ñu bañ loolu yoon looloo waral ñu porter plainte. macha allah oh. temps bi jeex waaw looloo ma je termine. looloo waral ñu porter plainte. section recherche dem def fa perquisition. waaw ñoom ba ñu yëgee ñu ngi def perquisition la veille à deux heures du matin ñu rawale xale bi yóbbu ko seen jàngu ba nekk Tëngéej loolu leer na ci la Jamra defee point de presse alerte état bi ñoom ñu tiit nag jëlee xale bi Tëngéej ñëw ba Faidherbe ba buntu brigade de recherche tijji buntu oto bi sànni ko foofu taal taal ko dem eh. loolu leer na affaire mafia yooyu mooy la alors kii naan xaw ma lan. léegi nag. bi opinion bi yégee ne Mariama bi évangéliste yi euh, capturé woon séquestré ko Jamra xeex na ba ñu libere ko dans les vingt quatre heures j'ai reçu vingt deux réclamations de vingt deux familles ndekete am na ñuy souffrir ah, loolu. ah dinañ ci defaat débat spécial. loolu dama lay yëgal ne jël nañu avocat. Hmm. dina am des suites judiciaires incha allah parce que ñun on a une une écrasante majorité de musulmans ban jullit kii daayira nga gis ñuy dugg ci kër catholique yi di leen campagne ko propagande toog leen ngeen tee seen diine mm. te ngeen bàyyi ñëg suñu bos suñu borom moo tax ba jullit euh, euh, euh, nanguñu di dem di propagande kenn suñu borom a ko wax làkkum diinikum wala diini jërëjëf bàyyi leen ak ñii seen dil ngeen téye seen. jërëjëf maam Matar jërëjëf noonu la demee. di leen bu baax di ko ñaanal wér ah di ko ñaanal mm-hmm. gudd waxtaan wi neex na. waaw ah. maam Matar Gueye ah. waaye bul ñoo tooñ. d'ailleurs seen kilifa bu mag bi maa ngi koy gërëm. kili kili kilifa déedéet waa kilifa évangile fii. waaw ma yëgal benn scoop ma ma yëgal la benn scoop kilifaam seen kilifa yëpp. mu di euh, pasteur Gabriel Sagna ba mu yëgee wax ju ñàkk teggin bu insolent bi pasteur Félix Ndiaye wax te ñëpp a gis ko ci réseaux sociaux te ma tontu ko moom moo ma ñaan audience jaar ci Seydi sama ak Alioune Tine ma recevoir ko. muy mag mu yaru. ma ne ko un vrai père pasteur nii lay mel. yow ku la xoolee xam nga nit yu diine nga. waaye di def des déclarations arrogantes et naan xale bi elle a été manipulée ñi koy jàppale aussi c' est des manipulateurs loolu du waxu kilifa diine. donc mm. on est en train de travailler. Mm. avec le pasteur Gabriel Sagna qui le président. Euh, de de de la grande famille évangélique du Sénégal. pour que extrémiste yii di jàpp doomu jàmbur yi di leen yóbbu di leen génn ci diine ji ñu freiné leen balaa muy jël musiba parce que lii moo taal Rwanda. macha allah moo taal République centrafricaine. entre les musulmans Seleka. et les chrétiens et animistes di anti balaka. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Amadou Xataab Gueye rafetati na macha allah.